tànku ziar la woon ñëw euh, firndeel suñu ziar euh, porte parole xalif général de Tidiane euh, sëriñ Abdoul Aziz Sy si suñu tur si turu ministre Mansour Faye bi nga xam ni moo ñu fi gabal tey pour que ñu mën a anticiper lépp loo xam ni war nañ ko def si gàmmu gi. mën ko def mu gën a teel ba nga xamee ni à une semaine du gàmmu dina fekk lépp matukaay boo xam ni waroon nañ ko jël ñu jël ko moo waral tey ñu ñëw fii pour d'abord évaluer li nga xam ni daaw gefoon nañ ko euh, muy indi nañ fi daaw vingt cinq kilomètres pour topp yokkaayu dëkk bi yaatuwaayu dëkk bi mooy vingt cinq kilomètres réseau yu bees te vingt cinq kilomètres yooyu képp koo xam ni conduite bi jaaroon na ci sa buntu kër indil ngañ la ndox gratuitement mooy branchement sociaux mu nekk tamit lu ma 2000 personnes yoo xam ni ak accordé nañ leen branchement sociaux ren nag ministre bi ñëw ni il faut que c'est vrai que li ñu def daaw muy guléet wante il faut que ñu yokk ko ren moo tax gouvernement bi jëlaat 10 kilomètres mu ni dafay gungewaat aussi euh, urbanisation modernisation wu ville Tivaouane gunge pour mottali yéene bi nga xam ni président de la république am na ko it euh, pour moderniser ces cités religieuses yëpp moo tax tey ren ñu ñëw indiwaat dix kilomètres réseau teg ko ci loxo sëriñ bi pour mu nekk mm, appui wu gouvernement bi mais tamit ñu joxale ko mille branchements sociaux pour gunge gunge néew gi doole yi nga xam ni amuñu woon ay branchements. te tey si mille branchement sociaux yooyu SDE bi nga xam ne moom la ñu àndal nee na ñu exécuté comme nga ñu six cent branchements sociaux donc à une semaine du gàmmu incha allah bëgg nañu lépp loo xam ne ñun suñu cër la woon ñu anticiper ko ba matal ko ba nga xam ni bu buñ fi ñëwaatee dina fekk vraiment lépp loo xam ni commencé woon nañ ko ñu mën ko mettre en service loolu moo doon tànk yi tey beneen euh, pàcc bi. mooy euh, ñëw tàllal suñu loxo en tant que talibé tàllal suñu loxo en tant que njiit tàllal suñu loxo en tant que euh, ku ñu dénk tamit euh, pour mu jéem a assurer approvisionnement wu en eau pour population yi pour que ñaari projet yi nga xam ni état bu Sénégal gouvernement bi mettre na ko en place muy ñaari projet yu takku yoo xam ni coût bi daanaka ëpp na weesu na quatre cent milliards ci suñu xaalis benn bi. muy ñetteelu usine bi nga xam ni moom la gouvernement bi fas yéene tabax ci Kër Momar Sarr muy traversé lu mat deux cent seize kilomètres rombale fii ci waawan euh, dem ba Dakar ak beneen projet boo xam ni mooy projet de dessalement wu ndoxu géej gi mooy usine bu bees la bu ñuy tabax ci côté Wakaam nga xam ni japonais yi ñooñu ci gunge tàll suñu loxo yi sëriñ bi mu gunge ñu ci si ay ñaanam ba nga xam ni yàlla dina mottale mottali nga bét bi yàlla dina ñu may ñu commencé ko si jàmm euh, àggale ko si jàmm pour njëriñu askan wi njëriñu population bi pour que fii ba 2035 nit en tout cas Dakaaru ak fépp foo xam ni conduite yooyu bees yooyu romb na fa nga bañati jooy mbirum ndox waaw je pense que wax ngeen ko sëriñ bi wax na ko it fàttali na ko que moom fàttalikuwul gàmm bu ñu def mu nekk gàmm boo xam ni am nañ ci jafe-jafe ndox bu tar na xam ngeen ni période bu gàmm daanaka Tiwaawan ay millions yi nit ñoo fiy ñëw mais gañuy kant yàlla bi nga xamee ni euh, mën nañu wax ni euh, farluñ si daal am ay jafe-jafe yu yoo xam ni mën nañ ko yëg lool wala population yi mën koo yëg lool même quartier yi nga xam ni réseau bi àggu fa même quartier yi nga xam ni nga fa féete kaw euh, am na dispositif bu spécial boo xam ni SDE mu ngi koy déployer si injonction wu gouvernement bi mooy ay camion citerne donc tey jumtukaay bépp jumtukaay boo xam ne jël nañ ko ministre bi fii la taxaw am na ñaari at si gannaaw nit dafa bëgg ñuy def gàmm bu yoo xam ni du am benn camion citerne loolu mooy suñu tànk si loolu nga ñuy dox moo waral programme yi ñu këral mooy extension de réseau yi moo tax daaw ñu indi fi vingt cinq kilomètres réseau ren ñu indiwaat fi dix kilomètres ba nga xam ni nit ñi dinañu mën a gàmm sans seen camion citerne fépp fu nit nekk ndox mën la fa fekk te mu nekk ndox bu sell loo xam ne si robinet lay jóge loolu mooy li nga xam ni mooy dispositif yoo xam ni chaque année ñu ngi koy jéem a renforcer ba nga xam ni mbirum ndox daal bu nekk loo xam ni en tout cas pèlerin yi wala ñu fiy ñëw ndaxte gàmm mooy julli gàmm il faut nga jàpp gàmm il faut nga soxla ndox si lépp looy def il faut nga soxla ndox te ñu liggéey def suñu kéemtalaay kattan ba nga xam ni incha allah ndox du loo xam ni daal gi dañ ko fi jooy. dañuy luy loolu ndax mën nga ñëw ci programme bi. branchement sociaux mooy programme la yoo xam ni gouvernement bi état bi moo ko teg euh, si ak appui partenaire au développement yi moom it mu dugal loxoom si naafaam pour que ñi nga xam ni seen doole matul seen dugg gannaaw jotul seen dugg gannaaw bëgg ndox. loolu mooy coût branchement bi ay souvent ay cent cinquante mille la ba trois cent mille Euh, au lieu que nit ki fayal ko boppam état bi moo koy fay euh, donc fay ko SDE kon mu réaliser ko pour nit ki loolu mooy branchement sociaux donc daaw def nañ ci fii si waaw lu mat 2000 branchements sociaux loo xam ni état bi daanaka moom moo ko fayal nit ñi euh, ren nag état bi nit dina jafaat mille autres branchements boole ko 10 kilomètres yi nga xam ni moom la ñu indi mais yamuñu foofu rek ñu ni ji euh, dinañu exonéré lépp ñi nga xam ni ñu ngi ci tranche sociale de zéro à vingt mètres cubes non seulement amul TVA mais aussi nekk na loo xam ni foo xam ni ndox mi ñu ngi koy jaayee trois cent cinquante à quatre cent francs le mètre cube ku nekk ci tranche sociale boobu daanaka njëgu ndox bi àggul deux cent francs le mètre cube te kooku képp kuy sénégalais on est à peu près on a à peu près euh, sept mille usagers sept sept millions du moins usagers si suñu périmètre. mu ngi toll si un peu moins de sept sept cent abone donc euh, abonnés yooyu yëpp bénéficier nañu muy man di kanan ak kaneen même ku feex état bi subventionné na la si sa facture ndox les vingt premières mètres cubes képp kuy sénégalais état bi subventionné na la si à hauteur de deux cent francs le mètre cube quasiment boo koy xool. muy 200 francs fois 20 mètres cubes muy mille francs yoo xam ni état bi subventionné na ko si chaque facture ndox loolu boo ko multiplier par le nombre de factures d'eau kooku daanaka subvention wu état bi si jëmalee ko si population yi si mbirum ndox par at. mën nañu wax ni mat na dix milliards de nos francs CFA sans compter mesures yi nga xam ni état bi jëlaat na ko pour projet yu bees yi nga xam ni daanaka quatre cent milliards la moom mu ni dina ko subventionné à hauteur de quatre vingt cinq pour daanaka ñun SONES doo gu ñu fay daanaka quatre vingt cinq pour cent yi sous forme de don la pour cent yi nga ñuy fay te loolu gaf ko def tamit pour que. Euh, lépp luy ndox ñu bañ a xalaat ko yokk bu dee wàññiwuñu njëg bi loolu mooy yéene gouvernement bi mooy yéene état bi te ñun it ci loolu ga ñuy dox.